ce programme également est venu à son heure parce que dafa fait, fekk ñu un bon promoteur bu ñu jappalé li ngeen di de ni après di ngeen ko visiter mais il faut après apprendre aux gens comment utiliser cet outil et derrière tout ça que nous avons aujourd'hui des problèmes de ressources halieutiques ku ne xam tous nos marchés tous nos stocks sont exploités voire surexploités donc le peu qui nous reste il nous faut le valoriser. Valoriser que comment Au niveau de, euh, du poisson frais, mais également au, niveau du poisson transformé. poisson transformé Sénégal nous qui sommes au niveau des zones côtières nous n'avons pas trop de problèmes, bien que gis ngeen ne bu hein? mais l'intérieur du pays ñoo xam ne dañuy am problème conservation c'est-à-dire chaîne de froid li ñuy transformer muy poisson salé séché fumé keccax ak yooyu moom mooy gën a dugg ci biir dëkk bi pour xeex ndóol di liggéey ci sécurité alimentaire parce que xam naa sécurité alimentaire ku lekkul ba suur taloo donc ça contribue vraiment à l'autosuffisance alimentaire donc lu am solo la mais bu amee solo ni ñuy soppee jën gën a am solo ndax waroo di jéem a dakkandool di ci jëlaale feebar donc il nous faut de la qualité il nous faut augmenter réussir au Sénégal il nous faut augmenter suñu koom comment en transformant mieux donc euh, SG euh, je pense que daaw nga dem ci marché yi mais rarement nga fekk jejje bu mel nii bu ñu dugal nii donc euh, c'est important donc vous voyez comme nga jëjë bi boo koy jaay doo comme yeneen yi ma yàgg a gis qui marché bi léegi nag à travers ça nous l'avons fabriqué ici dans cette unité donc télé est ngi nii di ko jël gan ko gisee ci biti dañuy daw ci pour bu melni donc fexe leen ba bu melni kon sax capitaliser ce qu'on a fait pendant ces jours là parce que sommes à la limite c'est des experts hein. peut-être que nous utiliser les outils que nous nous utilisons mais connaissance magnifique. il suffisait juste d'améliorer pour atteindre nos objectifs et je pense que nous les avons atteints avec votre appui maintenant pour terminer euh, je gère un département vous avez un programme j'aimerais bien que vous me rajoutiez encore parce que j'ai les grands sites comme à Joal comme tant et qui font beaucoup de tchétchak. au Sénégal c'est ce sont l'un des plus grands sites qui font tchétchak ketchup. d'ailleurs ils approvisionnent Sénégal ils approvisionnent la sous-région c'est des tonnes et des tonnes de poissons transformés qui vont vers euh, la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, euh, Mali, ainsi de suite, Burkina, euh, Burkina, Ghana et autres. Donc, nous aussi, nous euh, une classe comme ça ce serait bien bien que peut-être les réalités sur le terrain parce que avons une structure bu mais nous, ils transforment en grande quantité en très grande quantité donc ils auront besoin d'être formés mais d'être appuyés également sur tout ce qui est four de brisage. donc vous avez vu que derrière quand vous allez visiter vous allez vous rendre compte euh, nous avons des séchoirs solaires nous avons également des fours FTT donc qui utilisent un peu moins de combustible donc non seulement économiquement, ça va aider les femmes par rapport au combustible, mais aussi ça lutte contre la désertification. Parce que côté environnement, Garabi les pour utiliser comme combustible. Donc quand on a des fours qui utilisent moins de combustible, euh, non seulement on fait des produits de meilleure qualité, mais aussi on préserve l'environnement. Donc voilà en quelques mots, monsieur le secrétaire général, euh, ce que j'avais à dire par rapport à cette formation. Li, nous danga xam mar siit yi bari nañ ñoo fi gën a néew doole mais tey dama def ne ñoo ëpp doole ni situ mbuur jiite ci siti ci transformation tey yàlla dimbali nañu ba kenn mënatu noo raw mais duñ koy sante ñi nga xam ne ñoo ñu jiital te pakastalu ñun nu ngi ñaan nag ndax noonu jigéen lañ waaye ci kilifteef rek la ñuy jaar nekk ci kilifteef moo ñu indi ci lii ñu am tey parce que ku lay xelal nga jël noppa bi di ko déglu beneen bi nekk fële doo respecté li mu lay sante te Marc damay wax ne ñun sax dañu amul benn inspecteur bu bon amuñu ko parce dañ ne àndalee nañ ñi di leen superviser mais mënoon nañ ñoo dugal ci ñag bi kon tey lii du am Marc bu amul woon ci ñoom ñun confiance du la fi indi bi nga ñu déggee it boo amul woon ci ñoom confiance doo fi ñëw parce que place yëpp a bari na waaye nu gis sant yàlla di leen sant di leen ñaanal yàlla yal na yàlla may leen doole yokk seen avancement ndegam ay nit ci diine lañ na yàlla defar lépp di sant it xaaye lu tax ma ne la demal ci xaaye xaaye dafa waroon a yem ci li mu war a liggéey fële lay waroon a yem ci ci ci bureau bi luñ ko wax moo bañ mais xaay day liggéey lu jigéen war a liggéey liggéey liggéeyam waxtu wu nekk emailam bi lañ joxe kuy ooti ool xaaya lu ñuy def xaaya lañ koy def loo te dugalaguñu nag ndax nun day jànguñu waaye soo yoree say chiffre di bind di nga di nga mën ngaa dugal ko ku jàngul de lu mu am am mémoire ku jàng su digaalee ku jàngul mun na ko kole mais ñii fi toog de kenn kolewuñu ñuy ñaan yàlla yal na yàlla lokk yokkal yi mu ngi tàllal nag sunu loxo di leen ko dëkk am ci yéen yaakaar te yàlla bu yaakaar tas nun dey fi mu nekk nii ku nu jàppale day jàppale nga askan Sénégal parce que ñun jigéen lañ surtout nun ñi ne ci pêche amuñu feneen fu ñu jëm mënuñu bay mënuñu commerce mënuñu def leneen mais liñ den di sas daal fii lu fi manqué sas nañu leen ngeen mottali ko bu gën a ñu jël suñu oto fu ñu bëgg gis dégg jën ñu dem fu ñu war a jaay ci bitim réew ñu yegg fa fu formation am bu ñu yokk ñu taxaw fa ñu ngi leen koy sas yal na leen ko yàlla yombalal. foog naa maa ngi soog a sentir njëriñu li ñuy def parce que suñ di gisee ñamel ni yéen nekk suñuy yaay. bàyyi seen liggéey bàyyi seen activité ñëw pour gën a yokk xam-xam ñun foofu lu ñuy gën a nattee ñun la nga xamante ne war nañ ko def ak la nga xamante ne ah sasoo nañ ko def ak askan wi ndax ñu mën a am yokkute ci seen liggéey euh, balaa may wéyal waxtaan bi nag damay gërëm ña nga xamante ne ñoo fi toog te foog naa euh, lii nii tamit gisuñu ko feneen fi sectoriel di déplacé woo ñëw ànd ak ñun pour wax ak nit ñi pour yokk leen xam-xam yokk leen koom-koom foog naa ñun loolu daf ñuy gën a dolli te suñ sañoon sax collaboration bi foofu lay njëkkee balaa sax ñuy ñëw ci nit ñi parce que ñun nekkuñ ci secteur pêche ñun dañuy def accompagnement création entreprise gestion entreprise ak yi ñi mel euh, mais munoo développer entreprise su nekkee ne la nga xamante ne xarañte nga ko nga war a am ci sa activité amoo ko foog naa balaa sax ngay wax gestion doo fa yegg parce que maîtriser woo sa domaine donc euh, monsieur Marc loolu vraiment euh, ñu ngi la koy gërëmee di gërëm tamit waa waa secteur pêche bi yëpp seen ministère ak ña ngay ña ngay liggéeyal am fi tamit ay ressources ressources foog naa ñëpp sedd nañ ci ci Lamine la nga xamante ne yàgg na ko def fii ci Mbour ak ci ci secteur bi Matar Thiam nag bon Matar Thiam laa koy wooye yàgg nañ liggéey ba may nekk ASEPEX di yëngatu ci lépp li jëm ci exportation bokk nañu liggéey lu yàgg-yàgg génn Sénégal dem jaay surtout ci domaine bi domaine u pêche moo tax ba mit ba ma jógee ASEPEX ñëw ADPME ñu am programme euh, ñu boole ci secteur pêche sama xel ci moom la njëkk a dem dama ne samay collègue a ah, yende ci secteur boobu donte am na ay kuréel yu bëri dama bëgg ngeen woo Matar Thiam la ngeen ci soxla dina leen ko jox donc vraiment euh, monsieur am ñu ngi lay gërëm bu baax a baax te amuñu natable ne la nga xamante ne bokk nga ko suñu yaay yi vraiment seen seen avancement ak seen ak seen changement rek lañ ci mën a jëlee parce que expérience bi am nga ko te dund nga ko parce que ci secteur bi nga doon liggéey ci ci boppam euh, di nuyu tamit ñëpp ñi fi ñi fi toog ñun nag la ñu fi tax a ñëw tey ci secteur bu am importance ngeen ngeen nekk muy secteur pêche ñu jàpp ne Sénégal am na géej bu yaatu am nañ sax ressource mën nañ wax ressource yu bëri mais su fekkee ne jën boobu dañ koy jël euh, dem jaayi ko bitim réew te amul transformation euh, duñ jotagum suñu objectif parce donte sax am na ñi ciy ñi ciy ñi ciy am seen seen sutura mooy ñay ña koy napp ñi koy jaay peut-être dinañ ko mais ci parce que transformation euh, valeur ajoutée mooy tax nga mën créer koom-koom moo tax suñu yaay yi mën cee gis seen suñu ndaw yi mën ñëw liggéey ci biir euh, njaboot yi en tout cas am pour que ñu gën en tout cas euh, développer suñu économie loolu moo tax ñu ànd ak suñu partenaire waa GIZ ñoom ñu am benn programme bu am njëriñ ñu koy tuddee réussir au Sénégal maanaam mën nañ fi tekkee fii fi ñu dëkk te su nekkee fii dañ ñëw ci Mbour jàngaluñu leen naka ngeen di def ba seen liggéey ci nappum jën wala ci transformation jën mën a avancé xawma ma lan lañ leen mën a jàngal leneen parce que dañu wax tekki fi nga nekk yéen nag fii ngeen nekk dëkku géej ngeen nekk dëkku euh, napp ngeen nekk donc ñun ñëw fekk si leen ci la nga xamante ne fa ngeen nekk ca ngeen di yëngatu dolli leen ci foog naa loolu mooy tax ngeen tekki fii ngeen nekk suñu ndaw yi tamit mën cee dugg euh, euh, ndaw Sénégal mën cee dugg pour que la nga xamante ne ñu ngi koy gis fii ci Sénégal muy émigration clandestine muy ay ay ay yëf yu doy waar yi ñuy gis loolu mën a dàgg Sénégal pour que suñu ndaw yi mën a am xëy. té loolu ci transformation lañ ko mën a ci industrialisation lañ ko mën a parce que euh, secteur yoyu secteur yoyu en en tout cas euh, euh, capacité ak quantité main d'œuvre bu bu bu bu am solo tay nak ñépp xam nañ né jeun wala produit yi ñuy transformer fi produit yi ñuy lekk la té ku wax lekk wax qualité t'ay foog na su ngeen bëggee jaay. Euh, ci ci ci bitim réew wala chaîne de grande distribution yi nekk fii Sénégal dana soxla la nga xamante ne mooy norme qualité yi norme d'hygiène yi ngeen respecté ko loolu moo tax ñu ne puisque yéen xam ngeen yeneen yeneen euh, euh, aspect li seen liggéey dafay baax ñu ñëw dolle leen en tout cas pàcc boobu pour que ngeen gën a mën a xarañ ci la nga xamante ne mooy seen liggéey lii nag su paree Euh, dañuy enchaîner ak beneen formation jàngal leen naka la ñuy saytoo koom-koom maanaam gestion parce que ñun loolu mooy suñu intervention nu ñu defee ba augmenter améliorer capacité technique ak managériale technique bi ngeen def nii su ngeen ko weesoo dañu leen di jàngal naka ngeen di def pour saytu seen koom-koom parce que sa gafaka bopp munoo ko booleeg gafaka liggéeyukaay la nga xamante ne soxla nga ko pour nga jën di jën loolu da ko war a waajal.

te foog naa loolu yëpp suñ ko réussiree di ngeen gis ne seen koom-koom dina mën a vraiment améliorer wu mais dama bëgg centre bi ci boppam fi ñu nekk nii ñu jël ko comme cas pilote ah pour que def ci accompagnement bi bi ci war yëpp won Sénégal tamit am na lu ñu mën a def ba réussir suñu yaay yi am na lu ñu mën a liggéey ba mën cee en cas gis seen bopp vraiment foog naa bu leen bu leen adp ma mi ngi mi ngi mi ngi ànd ak yéen euh, commencé nañ ko tey dinañ ko wéyal ànd ñi fi nekk pour que vraiment la nga xamante ne mooy seen activité fii ñëpp a gis ne investissement yi fi nekk déjà investissement yu yu yu xarañ lañu pour que ñu mën cee dolli ndax ngeen gën a mën a gis seen seen bopp ci liggéey bi ndax suñuy njaboot yi gën a naat parce que ñëpp xam nañ ne suñu yaay yi moom suñu liggéeyee duñu yóbbu feneen kër ga rek lañuy ñuy yóbbu donc loolu euh, euh, suñu njëriñ lay doon avancement ñëpp lay doon. vraiment ci kàddu yooyu laa leen bëggoon sant bu baax a baax di leen gërëm di leen encourager di leen sargal di leen naan tamit tey dañ tàmbali rek la ca gën a am njëriñ mooy lay topp formation bi foog naa max fi ñu nekkee ne leen ah lii may benn semaine laa leen may su ngeen ko euh, toppul dinaa leen andil jafe-jafe loolu tamit moo ñu tax a jóg

ñu topp leen pendant un certain temps xool ndax outil yi ñu leen di defaral fii di ngeen koy utiliser et cetera et cetera parce que dañ jàpp ne fii ngeen nekk li ngeen di liggéey ca la développement mën a jaare te sa la ca la Sénégal di mën a naatee maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant. damay sant yàlla bu ma amee chance su jàppale jigéen ñi si liggéey bi ñuy def ñoom ñoo am xam-xamu liggéey bi donc ñun lu ñu doon def rek mooy jàppale leen pour wan leen que pour euh, liggéeyu jën dafa am ay anam yu ñu ko war a defee. du rek lañ tàmmoon def li maam yi doon def mais ñun nañ ko war a defee nii pour que kat bi mu wóor ko ni jën bi muy jënd moom du ko indil feebar parce que li ñuy jaay yëpp lekk la day dugg si biir donc war nañ ko gis mu am ñu ngi koy gisee mu rafet nañ koy liggéeyee mu dalal xel aussi loolu la ñu ADPME ñëw ak partenaire am GIZ ñëw laaj ñu ñu jàppale jigéen ñooñu ci loolu loolu lañ leen jàppale parce que bu ñu gisee ñoom li ñuy toog chaque jour ñu ñëw di déglu di defal seen bopp sax kii loolu rek satisfaction la te liñ suñu mbébét mooy ak ak waa euh, ADPME mooy que ñu tàggat leen ci affaire qualité ba pare loolu yaakaar naa ni am nañ ci luñ ci parce que ba ñu paree sax ñoom seen bopp ñoo laajte dinañ appliquer li ñu leen jàngal suñ ko appliquer wu suñu yoon dal leen ñoo ko laaj départemental. beneen bi mooy ADPME engagé wu na tey parce que li mu gis fii dafa dal xelam aussi ni da leen di jàppale ci ni ñuy gérer comme bi xaalis bi ak yooyu jënd beeg jaay bi pour que buñ muy amal leen njëriñ. li si ëpp solo sax mooy que gis nañ ñoom def nañ jéego yu ndaw pour nekk ci comme usine jën yi ñu daan xamoon yu jën bu tooy bi nañ daan defee ñoom ñu ne dina leen jàppale ba ñu am ci norme yooyu jëtal leen tuuti matériel jàppale leen et ñëw indi ay nit ñu leen di chaque jour ñu nekk seen wet ba ñu tegu ci raay bi ba mën a demal seen bopp te loolu mooy njëriñ parce que ay jigéen la ñuy jàppale nii te ku jàppale jigéen jàppale nga famille te ku jàppale famille aussi indi nga stabilité ci réew te loolu moo tax ma ni programme bi bu ko xeeb parce que beaucoup kee dana law fep parce que dina nek modèle loolu rek moy njëriñu li ñuy def ni mo taxone ñuy gëreum aussi ADPM ak GIZ ci taxway bobu ak vision bobu ñu am ci secteur transformation artisanale. Euh, Ante Diouf Top transformatrice là, man maay euh, secrétaire administrative par intérim du GE bokk liggéey Mbaling muy fédération bo xamné 175 femmes lañu ñoy liggéey fi ci le Mbaling. ñëpp xam nañ ne jën fi mu nekk jafe na jafe goo xam ne pour ñu liggéey ko foog ñu soppali doxin si kaw soppali doxin boobu la moo tax waa ADPME ak waa euh, gis gis institut ñëw pour jàppale ñu di former di ñu def renforcement de capacité parce que am na lu ñu xam gaa mais nag nouvelle technologie yi wala nouveau marché yi buñ ko buggee bu euh, buñ fa buggee yegg foog ñu am ñu ñu doxalee. yalla def na bo ba legi ñu ngi dox ci lolu site euh, euh, centre bi ngay gis c'est ñuy partenaire ñoo ko tabaxal partenaire yoy ñu ko tabaxal nak fokk ñu am ay équipement yu mu andal def nañ lu bari mais dañuy ñaan doli nak nak marche den jafena kétiax da di lo xam da fay dàq mais dafa baax si wér yaramu nit kon nak suñu produit yi ñuy jaay dafa di lo xam dañ ko wara defa defar bu anam yu jaar yom anam yu jaar yoy nak mo ñu taxa anam yu jaar yooyu nag moo tax léegi ñu bëgg a doon ay entreprise nag léegi suñu produit ñu koy jaay Sénégal mais mën a yegg bitim réew loolu daal mooy suñu objectif fi mu nekk nii te dañu ñaan yàlla yegg fa ñu lancer un appel aussi à toutes les autorités nañ ñu jàppale si mais di lancer appel aussi aux jeunes parce que nag xale yi fois dañoo xool rek secteur transformation bëgguñu see dugg mais avenir a nga fa la appel boobu laay lancé pour xale yi ñuy dugg na si te xam ne bunt yi daa ubbil nañ ko ñëpp. jafe-jafe yi moom comme li nga wax rek jafe-jafe ñàkk jën mais jafe aussi pour am équipement bu ñu liggéey la ñu bëgg liggéey loolu tamit ay jafe-jafe lay suñu liggéey te nag war nañoo mën a bokk si foire yi war nañoo ma exporter bitim réew mais war nañoo aussi suñu loxo ñu def ko si dundi du waa Sénégal loolu nag suñu jafe-jafe la ñu ngi jaay mais xëy na amaan ñu anam yi ñuy jaayee. taxu koo demee noonu mais dañu bëgg toujours di améliorer di améliorer di améliorer ndax nit nag boo liggéeyul doo am koom-koom te euh, liggéey li ñuy liggéey amaana ñu ngi koy liggéey mais léeg-léeg bi sax doo ànd dañuy liggéey rek di dem loolu moo tax daal ñu bëgg a soppali doxin soppali comportement nit ñuy dimbalee dañoo commencé un premier pas rek dañu commencé ndax ñu ngi door a liggéey ak waa ADPME liñ ñu wax ah doy nañ suñu xel parce que nit boo koy dimbali commencé nekk dama lay xamal. rek am na loo def xamal boobu nag wax nañ leen suñu doléance yaakaar nañu ne ñuy dimbali si waar équipement ak formation yi tamit du doy yaakaar nañu aussi ab accompagnement bu am yoon boo xam ne dinañ mën a génn dinañ si mën a génn suñu liggéey.